waaw jàngat bi mooy seetlu ne euh, sunu réew am na institution yu dox mm-hmm. euh, renvoi moom yàgg nañ ko gis donc euh, amul jàngat bu particulier buñ ciy def lu dul rekk ñaan yàlla lépp am ci dal ak jàmm ndax jàmm rek lañ bëgg jàmm rek moo xaj Sénégal te ñun ñëpp kenn ci ñun amul beneen réew Sénégal bii rek lañ am. Mm-hmm. donc euh, yàlla na lépp am ci jàmm ak salaam. waaw xam nga euh, mbir mi moom euh, wax nañ ko waxati ko mun nañ ko wëlbati ci façon bu neex nit ñi ko mu neex nga toll fa nga toll di wax li la neex waaye li am moom fii ba suba mooy ab jànq moo moo ko topp. Euh, teg ko tuuma na dem teggi tuuma bañ ko teg fa mbaxana doone benn ah moom nag waxoon na fi ñëpp dégg ko mu ne moom dafa yàkkamti procès bi ñëw ndax mu setal deram waaye loolu nag yegg si na su ko defee li ñuy ñaawlu rek mooy taxawaay bi nga xam ne ñoom taxaw nañ ko te gis seen bopp ci engagement politique ci yoon yi rek mooy xotti war mooy institution réew mi wax ju ñaaw teg fitna ci mbedd mi bakkanu xale yi di ci rot ndax ay samba sax témb dafa mel ni ñi jot a faatu yu demee noonu moo leen moo leen ñuy jaale seeni wayjur ak seen njaboot yëpp mm-hmm. ñaan yàlla yërëm leen te mbir mi yem foofu ndax nag euh, loo xam ne sa stratégie politique yëpp mooy wax ju ñaaw songu institution yi euh, saaga nit ñi ak woo xale yi ne jóg leen ngeen jaay seen bakkan yegg ci banaan ku dee sa yaay sa yaay juraat loolu moom la ñuy ñaawlu euh, justice moom yoon ñëpp la fi nekkal boroom barke ak keneen ki ñoo ci yem su fekkee ne nag dañ la woo da war a wuy ji waaye waroo woote naan ne ci nit ñi faatu loolu mooy liy dëkk donc ñi ngi donc dénoncer li nga xam ne mooy taxawaay boobu nga xam ne taxawaayu fitna la euh, te jaru ko fi nag waaw ñuy woo ñëpp ñu am dal te wóolu sunu république ak sunu institution tey ñaan waajur yi ñu téye xale yi itam bañ leen a bàyyi ñuy génn ci nga xam ne ay manifestation violente la yu woote fi da lu nekk ci xew mm-hmm. ay accident yu ne mun na ci dal nit te jaru ko waaw loolu mooy sunu sunu xalaat ci mbir mi mm-hmm. di sant mm, bu baax gannaaw bi nga xamee ne mm, président Macky Sall woote na pour que ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ay acteurs politique ak acteurs de la vie publique ñu ñëw waxtaani réew mi ndax euh, tradition waxtaan boobu moo moo moo bokk na ci en tout cas li gën a màndargaal sunu démocratie ci taarixam ndax saa su ne mbir yi dañ koy waxtaane tàmm nañ ko wax réew mi kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo pencoo boobu nag mu woote mm. mënuñu lu dul rafetlu ko waaye di fàttali nag ni duguleet 2019 bi ñu jógee election yi conditions yi ñu ci demee dañ ko waxtaanee ndax daanaka ci juróom-ñaari ponc yi nga xam ne tegoon nañ ko euh, juróom ñaar fukk juróom-ñaaru ponk yi nga xam ne doon nañ ko waxtaanee. ñaar fukk ak juróom ci ponk ya dañ cee am déggoo yeneen ñaari yi gannaaw amoon na ñàkk a déggoo euh, président de la république xool nu mu doxale ba mu jëm kanam mm-hmm. laka loolu yi tamit euh, ci réforme yu bëri yu ñu def ci réew mi nga xam réforme enseignement supérieur réforme de l'éducation nationale euh, les concertations sur l'exploitation du pétrole loolu yëpp président dafa tàmm di woote waxtaan donc waxtaan dafa bokk moom ci doxalinam ci ni muy jiitale nguur waaw. waaw xam nga euh, loo xam ne doonuloo ko doonuñ ko suñuy wéjur dañoo am yéene ñun ñëpp ngir defar réew mi waaye loolu noo mun a bañ a di ko waxtaane loolu amoo ci sañ-sañ ba nga ne man dama bokk ci parti politique wala association génn sama kër. di loo xam ne sénégalais yëpp ko bokk nga ne dama ci am waxtaan ak xel ak xalaat ba pare taxaw ne man sama xalaat rek la ñuy nangu du ma waxtaan ak kenn loolu waxu caaxaan la liy fulla ak fayda mooy ñu ñëw waxtaanee mbir yi xool réew mi ci fi mu toll ak li ko wër ak xam ne bëri na yëngu-yëngu ci li ñu wër am situation économique bu exceptionnelle ci àddina bi guerru Ukraine bi àddina niñ ko gouverner aujourd'hui Euh, indi ay enjeux yu bees yoo xam ne dafay laaj képp ku bugg réew mi nga ñëw ñu toog waxtaan ko loolu mooy li nga xam ne mooy fulla ak fayda loolu mooy bëgg sa réew waaye loo xam ne ñëpp a ko bokk donnoo ko nga taxaw ne duma ci waxtaan loolu bokkul ci li xel mën a nangu waaw plateforme bi donc plateforme politique la mooy plateforme opposition bi euh, ku fa bokk yi tamit nel rek opposition nga bokk euh, waaw la rek opposition F24 moom opposition la rek opposition la te opposition am nañ ci sañ-sañ réew mi dafa war am opposition te nañ ko nangu euh, ñu jàppe leen noonu itam waaw su ko defee euh, dajale nañ seen i nit wax li ñu xalaat am nañ sañ-sañu wax ko waaw waaye ñu nit am nañ sañ-sañu wax li ñu xalaat ak suñu yéene ngir Sénégal loolu nag mooy démocratie soo amee sañ-sañu wax la nga xalaat da ngay nangul keneen kii itam mu sañ-sañu wax la mu xalaat ak bëgg-bëggam bëgg te ñu nangu ne euh, dëkk bi ay institution moo koy doxal Euh, conseil constitutionnel mooy valider ay candidature mais surtout sénégalais yi. ñooy voté ki ñu yaakaar ne doy na leen pour mu jiite seen réew. loolu jarul xuloo jarul xeex. waaw ñun ñun dañ ñun dañ ko bëgg ñun. ñun dañ ko bëgg ñun dañ ko bëgg te moom moo jiite réew mi. Mhm. jiite ko ci jiite bu rafet. joxe ci ay résultats yoo xam ne ba ñoom nee nañ suñuy waxati léegi waxatuñ bilan matériel bilan imaginaire la ñuy wax. donc ñoom suñu bëggee wax ci loo xam ne nag c'est dans leur imaginaire loolu seen seen seen yëf la waaye wax dëgg yàlla nit ki moom munoo ne man dinaa jàpp ne lii moo gën ci réew mi te li ma jàpp man dinaa la ko imposer loolu nit ñi am nañ fulla ak fayda boo xam ne euh, duñ la topp ci sa waxu fitna waaye am nañ fulla ak fayda boo xam ne nañu war a taxawee dinañ ko taxawee te suñu yéene yi tamit ci réew mi ànd ceeg président Macky Sall duñ ko mus a teggi parce que résultat yi mu am kenn contesté wu ko mm-hmm. waaw loolu nag Euh, suñu amee ku mel noonu dañuy liggéey ci yeggali yéene boobu loolu nag ñoom suñ ko bëggee contre am nañ ci sañ-sañ seen liberté la mm-hmm. waaye lii tax ñu mën a nekk ci réew moo xam ne nit ñi dañuy joxante cër mooy état droit mooy démocratie ak droit mooy doxal réew waaye du jaayante doole guléet ñu gis opposition boo xam ne mooy taxaw jàkkarlook nguur gi ne ko dinaa la jaay doole ba sama volonté ma am ko loolu kenn mësu ko gis mm-hmm. opposition bu jàkkaarloog nguur ne ko dinaa la jaay doole ba li mu bëgg ma am ko. waaw d'abord euh, pour ma terminer ci waxu lële. sénégalais yi ñooy tànn ki ñu bëgg mu jiite leen mu jiite leen te suñ koy tànn. ñaan yàlla bu mu mës doon ci ay fitna na doon ay carte yu ñu jël ku nekk kala doy nga woteel ko ñun nag li ñu yaakaar mooy président Macky Sall bokk na ci ñi nga xam ne si président Macky mooy ci gën. ci la la le destin du du pays loolu lañ xalaat mm-hmm. léegi nag euh, li nga wax noonu ci ci wàllu procès yi euh, loolu gis nañ li fi xew du lu ñu fekkewul ñun ñëpp gis nañ ko mu taxaw jiiñ ma Mbaye Niang la ko jiiñ ne moom mi ngi firnde yi suñ ko wooyee mu joxe ko waaye je pense que li ngeen war a def mooy dem laaj ko këyit ya mu ne woon mi ngi këram te moo ko yor fan la nekk ndax mu génne ko joxe ko li ci des yi tamit lii nii fi xew dina jafe nga gis ci politique su ci amee it xëj na ñu ko gis am nañ jafe-jafe pour wane ko ndax koo xam ne moom yàgg ka nga ko seqal moo la porté plainte fa ngeen ko seq kenn fekkewu yaa def ak defoo xamuñu waaye yow woo nañ la fa mbaxane benn pour nga mun a laver sa honneur seetal sa bopp waaw da dem seetal sa bopp waaye doo taxaw naan soxna si yow la wala man la wala keneen la loolu amul dara lu ci politique nit nag mun nga ko jéem politiser ko te loolu la jéem sax te soo mm. xoolee ba xool xaw na mel ni ku ko réussir ndax ñu bëri nañu koy déglu ci waxu politique mm. mais wax ji du waxu politique wax ji moom la ak soxna si mu ko seqal euh, ñu war a mun a leeral loolu fanam mbaxana doone benn lii rek la loolu jarul ci woote loolu yi tamit munoo ci teg ne fitna lañ lay teg yaa teg sa bopp fitna. Mm-hmm. parce que bi ngay wax ci waxi Rouba Mbaye Niang kenn forcé wu la dara yaa toog ba mu neex la wax li la neex kooku ne la ñëwal prouver li nga wax mm-hmm. loolu kay amul acharnement. kon mu kon ñun ñoo ko wax loo ñun ñoo ko ne da xëy suba nga jiiñ ma mbay ne yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi preuve waaw mais yow mu yow yow mun nga jël loo xalaat lu bon wax ko ci nit ki xëy teg ko tuuma ba pare nga di ko reprocher pour mu woole yow pour nga indi firnde ci tuuma yi nga ko teg yow daal yow am nga sañ-sañu def nit ki lu la neex mais moom amul sañ-sañu fayu ci loo xam ne yaa ko tooñ ah te waaye ni tamit nag je pense que nit ñi bu ñu jaxasee li ñu bëgg ak li nekk ah li nekk mooy moo tooñ jàmbur moo tooñ jàmbur taxaw en plus ci kanamu sénégalais yi yéen presse bi ngeen filmé ko mu leen maa ngi firnde li may wax nañ ma woo ma joxe ko loolu fan la complot état xaj foofu fan la état bi dugg ci complot bi ci diggante bi mu koy wax ak ne maa yor firnde ak ñëwal indi firnde yi fan la état bi dugg foofu. ana complot bi. waa nañ bàyyi caaxaan te it nañ jox euh, cër état ak modèle démocratique bi ñu jox ak jàmm ji ñu fekk fii ci réew mi nañ fexe ba sàmm ko ba joxe ko noonu suñuy doom. Mm-hmm. te comportement Ousmane Sonko ak ñu mu àndal léegi léeg ci dëgg-dëgg jëmul ci su préserver loolu daf ko bëgg yàq. waaw su ko bëgg yàq nag euh, duñ ko ci bàyyi dina am ay militants ay ñoo xam ne dinañ taxaw euh, jàkkaarloog ñoom sur tous les terrains. pour que jàmm ji ñu ci fekk ñu préserver waa di di rappeler rek Sénégal moom euh, benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar moo tax mbir yi faw ñu di ko waxtaanee mm-hmm. donc di encourager les gens au dialogue et puis c'est important que euh, dialogue boobu di am mm-hmm. parce que loolu mooy fondement suñu démocratie waxtaan moo ko laal mm-hmm. donc euh, ñuy ñuy ñuy rafetlu initiative président de la République parce que ça c'est important et puis ñu Euh, ñu woo nit ñi ci dal ak jàmm ndax Sénégal moom jàmm fi xëcc leneen xaju fi li koy jàmm nag day tax day tàmbale aussi ci respecte institution yi waaw ah, nit ki bul xool rek mbir mi sa buntu kër lii ñëpp bokk dañ koy waxtaanee mënoo ci jaay nit doole munoo ci jaay nit fitna euh, li ñuy def yëpp mun na bañ am njëriñ nit ñi c'est pas parce que da leen di menacer ba du ñu wax lu ñu xalaat dinañ défendre seen république défendre seen démocratie défendre seen pas-pas ak seen gëm-gëm ñuy encourager donc les initiatives yi nga xam ne moom lañ moom lañ jël dans le sens de de de de, de, euh, de, de du dialogue politique voilà voilà merci beaucoup